fa ay góor yàlla ay mm-hmm. héros boo mm-hmm. duggee ci diine ji mm-hmm. euh, bu ñu waxtaanee Sidi Aj Malik wala euh, Cheikhul Khadim sa yaram daw waaye boo duggee itam ci euh, façon gu jiite jiite réew wala jiite pays wala jiite tund am nañ ci itam ay nit yoo xamee ni par exemple ñoo ñu njëkk a jàngal démocratie loole daanaka moo nar a couleur guddi gi tey ak professeur Lamane Mbaye dëgg la Pape Cheikh li muy wane rek mooy li ñuy wax ne kuy kuy wàlliyan da tëggul te ñun suffisamment li ñu soxla yëpp am nañ ko léegi nag nan la ñuy def ba renouer le fil ak euh, valeur fondatrice yooyu nga xamante ni ay père fondateur rek ñoom ñoo ko incarné woon mhm. loolu je pense que moo nara a lal waxtaan bi mhm. di gërëm bu baax sëriñ bi doon yëkkati xasaayit bi di sant yàlla bu baax ci sindiidi bi mu fi jàng macha allah ndax sindiidi it xasida bu am solo la mhm. te ci njëlbinu soo bu sëriñ bi ci la ko taalif mu nekk xasida bu am solo xam naa oustaz Assane mën na ci dellu siwaat boo xamante ni daf ci dëxalante yu am solo ak ki nga xamante ni moom mooy boroomam euh, ñaan ci ñaan yu am solo ñu ñaan sunu borom ñaan yooyu mu def ko ci réew mi nangul ñu ko eh, daal di koy eh, daal di koy barkeel waaye entre vingt ans la ñu wax ak trente ans ci la taalif taalif bu rafet boobu mhm. waaye ngir wane rek ne ndaw ñi ngir wane ne nit bu naree amal njëriñ réewam ci ndawam rek ci nga koy xam mhm. jubluwaayam mhm. waaye bu ñu ko tuddee moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul tudd ñi nga xamante ni yëpp ñoom la jamononteel ak ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu noonu la ñuy tuddee tamit koo xamante ni ci dis mais dans la nuit di 10 au 11 mai ci 1973 mu nekkoon xale bu am solo Omar Blondin Diop hmm. moom it nekkoon un grand sénégalais un grand africain ñu wax ne ñàkk na bakkanam fële professeur dina ci dellu siwaat ca Gorée hmm. ci ay conditions yoo xamante ni ba tey xamuñu ko hmm. ñuy koy rendre hommage bu baax ndax taxawaayam moo amoon solo résistance bi mu doon def mu amoon solo mu nekk koo xamante nii nag ñoom Cheikh Ahmadou Bamba ñi ak ñoom Seydi Hadji Malick ak ñoom Cheikh Omar Foutiyou Tall moom héritier la woon ci ñooñu mhm. héritage boobu la woon ci ñooñu damay wax souvent ne bu dekki woon tey xam naa ne France dégage lay bokk bu ñoom Guy Marius Sagna <laughs> c'était la même posture mhm. donc euh, loolu tam professeur dina ci dellu si waat nan la ñu def ba les combats d'hier sont les combats d'aujourd'hui mhm. donc loolu dinañ ci dellu si waat professeur xam naa ne ñuy tijji waxtaan bi euh, comme ni ko Pape Cheikh waxee muy lépp loo xamante ni tey jii ñoo ngi koy jéggaani wala jéggaani nañ ko amoon nañ ko ba pare loolu nu ñu dalee hmm. waaye Omar Blondin Diop laa bëggoon ñu dellu siwaat ci ngir xale yi xam ne tey jii di 10 ak onze mais am na ñeneen ñu ñuy célébrer waaye ndekete am na ku ñu gën a jege nan la ñuy def ba célébrer ñeneen fàtte ki ñu gën a jege loolu nan la ñu dalee jërëjëf Pape Djibril euh, tudd nga koo xam ne yaakaar naa ni ci taarixu histoire du Sénégal hmm. na ci ñi nga xam ni Euh, ay ndaw lañ yoo xam ni dañoo teela a sotti dëgg la tubaab bi dafay nekkoon muy jamonoy colonisation moom bu bokk ci li ñuy wax les post 68 arts muy ñi nga xam ni 1968 euh, dañ doon bind ci miir yi il est interdit d'interdire muy mouvement boo xam ne mi ngi bàyyi ko États-Unis euh, bàyyi ko ci benn livre bu ñu doon wax lom uni unidimensionnel ak Herbert Marcuse waaye ñëw France ñëw Allemagne ba nga xam ne Europe jël na ko waaye ñëw Sénégal ba nga xam ne ñoom Blondin ñi ak ñeneen ñu nekkoon ak moom bokk nañ ci ñi nga xam ne taxawoon nañu di bañ bañ googu ñu leen doon bañ ci leen leen boome ci leen leen jële yóbbu leen def leen loo xam ne tey jii ba suñ jonni tey xale yi dañ koy jël comme exemple étudiants yi dañ koy jël comme exemple képp koo xam ne tey résistant nga dañ koy jël comme exemple mooy li nga wax sànq ci bañkat yooyu nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal tey jii Euh, Bécaye Blondin Diop di frère am nekk tey ca Bamako nekk architecte. Mhm. mi ngi seetaan nga xam ni ñoom aussi ak docteur Diallo Diop. Mhm. mi nga xam ni mooy porte-parole famille bi tout le temps mooy wax. Mhm. Euh, Omar Blondin nekkoon koo xam ni euh, joué na rôle boo xam ni en tout cas ci Sénégal kenn dootu ko fàtte. waaye dañuy wax ni suuf mën naa lekk suux waaye fii lay bàyyi jëf. moom defe naa ni jëf na jëf joo xam ne ba suñu jonn tey dañ koy wax ndax ni ñuy fàttali ko Lat Dior di fàttali ko Albouri wala ñuy fàttali ko beneen noonu la ñuy fàttali ko Omar Blondin Diop ci li rëy lim def ba tey jii ca gore gañ ko yóbbu. Mhm. léegi question bi ñuy njëkkee pap Cheikh mooy nu ñu def ba ñooñu ñu réere leen parce que en réalité il s'agit de ça tey jii boo demee ci yeneen réew yi ñi ñu am non seulement dafa am consensus bu am ci ñoom. waaye dafa am bés yoo xamante ni bu dellusee ñëpp dañu mémoire collective bi yëpp. dañ leen di ndamoo dañ leen di ndamoo. Mm. di leen dimbalikoo tamit. ci mm. seen quotidien mm-hmm. nga xamante ni ñoom seen conscience la ñuy nekk boo xamante ni saa bu ñu nekkee surtout ci situation. te tey yi am na phrase boo xam président junj na ko ci discours am. Mm-hmm. dafay renvoyer ci patrimoine immatériel boobu waaye nan lañ koy jëfandikoo. dëgg la euh, Pape xam nga. Euh, dañuy wax ni Sénégal boo ko doon xool dafa am benn instant boo xam ni bu fekkee lu tubéy la geeño gi dafa dagg hmm. léegi nag pour defaraat ko ci nga gis sax ñu def histoire générale du Sénégal may nuyu bu baax le professeur Iba Der ak équipe bi nga xam ne ñoom la àndal yépp mbaax Pape euh, euh, Cheikh Anta dafay wax ci nation nègre et culture dans la préface mu ni l'essentiel pour le peuple et de retrouver le fil conducteur qui le relie à son passé ancestral le plus lointain possible hmm. devant les agressions devant les facteurs désagrégeants du monde extérieur, l'arme culturelle la plus efficace dont puisse se doter un peuple est ce sentiment de continuité historique. ci gàttal mooy patrimoine immatériel boobu nga wax. ñi nga xam ni ñoo samp cosaan li. bu fekkee ni bëgg nañu réew mi delluwaat fa mu nekkoon il faut que ñuy fàttali ko ñu mel noonu. ndax dañuy wax ni kenn mënut a def tey retour au 19e siècle kenn mënut a tam tey retour au 16e siècle mën nañu wax recours au passé. Mm-hmm. retour au passé ko wax mais mën nañoo recourir aux valeurs nga laaj sànq. loolu nag ni ñu koy defee mooy dellu siwaat ci nga ñi nga xam ne tey mooy la tradition orale mooy ñi nga xam ne tey ñooy les dépositaires transmetteurs ñu dem ci ñoom ndax réew mi ñu nekk dafa am loo xam ne nekkul ci bibliothèque yi waaye mi ngi ci dënn yi ñooñu dañuy dem ci ñoom bu ko defee ñu def li tubaab bi wax passage au crible bu ñu jëlee kenn ku nekk li nga wax ñu sottat xalaat bi bu ñu ko xoolee yaakaar naa ne Pape Djibril danañ mën a dem fu sori foo xam ni lépp loo xam ne mag ñi bàyyi woon nañ ko danañ ko mën a jëfandikoo parce que daf ci yoo xamante ni euh, ñu ko dundoon ngi fi ba tey te mm-hmm. binduñ ci ba tey jërëjëf Pape xam nga loolu bokk na nag ci suñu suñu feebar mooy bind mm-hmm. xam nga ñun dañu bokk ci li professeur Mamoussé Diagne ji wax les civilisations de l'oralité mm-hmm. maanaam ñun dañoo dañoo civilisation wax lañu boo xoolee am na lu ñuy wax ay géwël am na lu ñuy wax ay waxkat am na lu ñuy wax ñoo xam ne ñoo yor cosaan ak aada ñooñu nag yeex nañu bind boo xoolee Afrique ñi doon bind mooy boo demee Sierra woon wala nga dem Libéria waaye ñi ci gënoon a avancé Cameroun lañ nekkoon mooy li ñuy wax l'écriture Bamoun ku ñuy wax Ibrahima Njoya moo jëkk a traduire la Bible en Bamoun moom la ñuy wax l'écriture Bamoun mm. waaye ñun suñu société yi ay société wax lañu looloo tax ñu ni tradition orale bi il faut ñu recueillir textes yi nga xam ni def nañ ko comme ni ñu ko UNESCO waxee woon en 2003 mm. bu ñu ko defee loolu ba pare nag doo koo dajale nag bind ko transcrire ko traduire ko pour que loolu mën a mën a mën a mën a fexe ba raw li nga xam ne moom la Pape Cheikh doon wax sànq ndax lu ñu bindul rek dañ koy daal di ñàkk ci lépp loo bindul day naaw mais mais professeur Euh, euh, fàtti dina yomb parce que ñun ñi ci la ñuy def suñuy thèse de doctorat boo demee tey université Cheikh Anta Diop am na ñoo xam ne def nañ ko ci pulaar am na ñoo xam ne def nañ ko ci séeréer am na ñoo xam ne def nañ ko ci joolaa kenn ku ci nekk dellu nga ci cosaan li nga xam ne fa nga nekkoon nga jël ay cassette enregistré ay mag ñëw toog transcrire ko traduir ko analyser ko def ko ay livres yoo xam ne dinañ ko mën a sottantal ba askan yu mën koo jariñoo léegi histoire tamit discipline scientifique la maanaam loo xamante ni aussi saa bu ñu dafay laaj benn rigueur scientifique benn travail scientifique boo xamante ni xëy na dina am confrontation waaye bu ñu buñ ko génnee nit ñi dinañ ci dinañ ci ma maanaam comité scientifique dinañ ci mën a d'accord ndax ni ko ñeneen ñi di defee yeneen réew yi nga xamante ni possibilité bi ñu am génne seen mag ñi teg ko càmbar ko xool sax yenn saa yi fi ñu échoué xool fi ñu réussir xool na lu taxoon ñu échoué ak lan moo taxoon ñu réussir lan moo tax ñun loolu tamit ñu am faiblesse boobu ba tey ci jàngat bi ñuy jàngat suñu histoire réew. loolu euh, Pape yaakaar naa ni euh, ñi ngi koy def euh, ci réew mi parce que commission boobu ma la doon wax sànq lépp da cee nekk am na ay sociologue mhm. am na ay anthropologue am na ay linguiste mhm. am na ay oraliste am na ay géographe donc pàcc yu bëree bëri yoo xam ni dañ leen a dajale kenn ku ci nekk indi li nga xam ni moom la ñu yaakaar ni boo ko indee yëf yi dana mën a dem ci kanam. ma jox la benn exemple ci histoire Cameroun dafa am benn benn benn benn borom xam-xam bu mag bu ñuy wax Achille Mbembe. Achille Mbembe nekkoon na fii ci Codesria léegi bu mu ma jumul mi ngi nekk Cape Town fële ci Afrique du Sud. moom euh, li ko li ko gën a lancé bi ñu bindi histoire kamarun mi ngi mel ni nga jël histoire Sénégal bind ko ba nuppi fàtte ci ku mel ni wala nga fàtte ku mel ni Albury wala nga fàtte ku mel ni El ñu defee téere boobu ba noppi dafa bind benn article tudde ko écrire l'histoire à partir d'une faille livre boobu moo ko lancé te loolu pap li ngay wax sànq rek mooy fexe ba nga xam ni kenn ku ci nekk ci wet gi nga mane ak wet gi nga féete nga mën a indi sa xalaat ñu bañ a xeeb kenn mu nekk une dimension inclusive kenn ku ci nekk ñu jël li nga xalaat bu ko sottee yaakaar naa ni mun na mun na mun na am lu jur léegi li tax ñu doon posé question yooyu Pape Cheikh bëgg koo laytaaye jotaay bi ndax dañ fee nar a waxtaane ay figure emblématique ñoo xamante ni dañu marqué suñu histoire réew mm-hmm. te léegi gisatuñ leen fenn euh, booleetuñ leen aussi ci lu bari mm-hmm. defatuñ recours comme ni ñu ko waxee léegi aussi ci seen ci seen seen liggéey. Mhm. Euh, bokk na ci euh, ñoo xamante dañ leen di tànn nii tey waaye mënoon nañ ñoo fanaanee tànn. ñoo xamante ni ay góor comme ay jigéen. Mhm. yoo xamante ni marqué nañ suñu histoire réew. Mhm. Euh, boo jëlee tey ji quelqu'un comme Lat Dior. Lat Dior Ngoné Latyr Diop boo ko jëlee tey bu weesoo li la ciy jàngal ci école. wax la ne 1886 la tëdd de xale. fii la gane àdduna fii la lii la def ak nangam. dafay laconique ba nga xamante ni du ñu renseigner dëgg-dëgg ci nit ki ki mu doon. Mhm. Euh, loolu nu mu amee la man beneen question subsidiaire bi mooy. Mhm. est-ce que mën nga ñoo wax tey jii kan mooy Lat Dior Ngoné Latyr Diop ci baat yu gàtt. jërëjëf Pape Djibril xam nga man damay naw toujours ni ngay.